moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati ñu ñëw rek suñu conseil conseil bi tey ñu fas yéene rek euh, waxtaanee yi nga xam ne mooy feebar hémorroïde nga jox na si quelques conseils quelques orientations ki nga xam ne dafa am waay dafa am waay mhm. yan ñam la war a lekk ak lan la war a moytu waaw ki am hémorroïde moom na bëri di naan ndox njëkk waaw am na ñoo xam ne naan bëriwul pare li ñuy lekk ci pat dafa bëri mburu mm-hmm. na fonk ñam yi am fibre ñam yi am dafa bëri fibre lu mel ni clémentine mm-hmm. lu mel ni papaye am na fruits yoo xam ne mm-hmm. douze mois su douze day am xam orange orange Maroc bi dafay am fu mu toll Euh, papaaya tam la même chose su mango amee tam muy lekk mango bu baax euh, di naan jus bisaab dina ko soulager euh, su dee bokk loolu ci alimentation bëri daal lu muy lekk fruit mën a tudd ko gerte kemb waaw gerte bu mu mën doon sax na ko moytu moytoon di ko banaana banaan su banaana dafay am na ñoo xam dafa leen di seere banaan si lu muy kole noonu eh, lépp loo xam ne mën na ko seer rek mu moytu ko mm-hmm. waaw Sénégal Sénégal bëriwuñ plat yu riche mm-hmm. ndax boo xoolee moom daanaka mën nga toog semaine boo xam ne lépp ceeb nga koy lekk mm-hmm. añ yëpp ceeb ngay lekk ñaari si tam maafe lañu xam ak cu euh, yaasa toujours waaw par rapport bu dee yeneen dëkk yi dafa bëri ay plat yoo xam xam nañ ko mm-hmm. suñu lekk mu daal riche comprendre ba pare sénégalais itam suñu gisee nga lekk fruit sax dañuy yaakaar ne patron nga fonk ñu fruit ah, léegi nag nit ki bu fekkee ne dafay bëri lu muy seere bu yàggee da koy jural hémorroïde xam nga taxaw bu bëri day joxe hémorroïde toog bu bëri day joxe hémorroïde conseil itam bokk na ci sport waaw bu dee nag sama kalaaf sëriñ gi moom ni ñu toog mooy ëpp daanaka du ñuy sport mais sport bokk ci li nga xam day soulager hémorroïde xam la mooy tundiku ataaya bu fort mooy tundiku café lépp yaa may dégg lépp lu excitant cigarette dafay yàq deret moo tax ñu bëri di le di tux cigarette day dem ba seen deret euh, day lekk seen deret boo la gisee su nee nu xees day dem ba mel lu xaw ñuul comprendre su nee nitu yaram day dem ba dañuy mel daf leen di jeexal yaa may dégg ba pare day couper appétit day joxe insomnie day wàññi ngóora lépp lu tey nit ki lekk rek di tëj biiram rek euh, daf lay néewloo kàttan jël lu mel ni lem lem boole ko huile d'olive boo defee nit ki am hémorroïde heure bu xëyee naan ci kuddu kuddu ak ak ngoon day soulager hémorroïde itam lu mel ni soble nga togg ko ak karité ki am hémorroïde di ci lekk kuddu suba kuddu ngoon su fekkee dafa am eh, hémorroïde boo xam dafa génn day jël karité boobu di ko dugal ci hémorroïde bi comprendre nga yooyu eh, dafay baax ci hémorroïde waaw ñoo ngi lay jërëjëf bu baax a baax ci conseil liggéeyam lu dul ku ñëw mu faj aajaati